alors madame la secretaire oui euh, faites entrer madame Woré Sarr mettez la caisse ici à côté waaw merci beaucoup. salaamaaleykum. maaleykum euh, salaam. ok. Euh, madame Woré. waaw euh, yow kese la ñu convoqué woon de. Ablaye Wade ma yónni. xam na ne war a gaynde la te bu ñuy attan naa xeex moo tax mu ne naa ñëw sous préfet mm-hmm. damaa xam loi te jigéen la bàyyi ma rek ma gunge ko moo tax ma ñëw jarul nga may gunge waaye dara nekku ci d'accord comme li mooy sama passeport laa jël si war nañ dem toog ku ma xam-xam ne man war a sax man gaynde la nànk rek tamit nànk àdduna du nii toogal ah toogal ne den ak moom yoo yoo nañu woo man damay gunge dong d'accord pare nànk euh, naan Ablaye. Euh, madame Woré Sarr yaakaar naa li la fi indi tey ñëpp xam nañ ko parce que marche bi nga xam ne moo mujjee am bii passé le 14 bii passé. wallaay amoon ay échauffourées entre les forces de l'ordre ak yéen ñi nga xam ne yéen a doon manifester. yàlla bu mu amaat. marche bi kenn interdire ko. waaw mais itinéraire bi ñu leen joxoon da ngeen ko bàyyi dem jaar fu leen neex. Mhm. gis ngeen yi si am jàppante ak force de l'ordre yi. Mhm. grenade lacrymogène yi ba à la limite da mujjee hmm? daw. waaw waaw ah. <laughs> kay daw de man Woré Sarr man mii rek di gaynde gu jigéen du ma mës a daw. wala jaru ko jëlal sa passeport rek. déedéet passeport dama koy jël. Ah. dama koy jël ci nii. jël ko ci naa gaynde laay doon du ma mës daw ay record xaw ma record mais sax xaw ma. déedéet indi leen ay ministre indi leen lu ne. indi ay bomb eh, indi leen ay bomb. indi ba nga génn doon ay militaire lañu. Ah, si sama yoon laa nekk sama droit laa nekk. waaw ah, may tey la gën a du xoolal gën a mars tey jii la ñuy gën a mën a yëngal réew mi tey la ñuy gën a mars nar a commisé ni ñëw bomb yi ñëw duñu ma sa kaw man waree saa bu ma bu ma ñoppati yaa ma yaa yaa yaa ngi dagg sama tànk bi waala waala laay doon ba a daw mais nga bàyyi Adja war a yow tamit bu su préfet wax yow tamit ah nga bàyyi ma wax moo tax ma waaw s'il vous bu fekkee moom mënul wax man yow au nga wax man war a noppil bu wax jotee nga wax noppil. ayca maa ngi lay déglu xam nga rek jigéen ñi. d'accord waaw léegi passeport am mi ngi nii. waaw kay da ko fee fàtte. waaw ñu ne non xaaral. tegul solo xaaral voie administrative la ñuy jaar. waaw passeport bi da ngay joxe cinq mille cinq <laughs> cent pour boo jox xoolal. du man nga koy waree waree ñu du ma joxe man nga koy jox état du Sénégal nga koy jox. Euh, cinq mille des na cinq cent francs. <laughs> yow bi doxal sa julli motali ko. dara coow jaru ko Ablaye Wade léegi xam sa. xaaral maanaam waree saa kanam waree yaa ngi ci état ngay waxal homme jox ko respect ah. 5000 euh, francs. waaw xamee nga ma. su ma fi jaaree jox la téeméer na ok ok amul problème 500 francs bi sax man mun naa ko compléter. pour la bonne cause. waaw ñu ngi ñoo dem waree. non xaaral da ngay jëf sa empreinte digitale. jël ko waaw defal jëlal fi ñu def sa empreinte comme ça ñu xam ne. jëlal rek waree empreinte ñu xam ne balaa may def empreinte damay xam lan la. mais empreinte digitale pour ñu mën la identifier. xam ne waree saar empreinte mooy tuuti xaalis jëlal rek. parce que man ki ma gis nii je sais pas man xam waree saar. moo ñëw moo xam la moo tax mu dénk ma la. tegal boobu waa pouce bi. ok tegal beneen pouce bi tamit côté bële waaw kay waaw kay sax voilà. ànd ak dal dal xam ne fulaak fayda lay dox. war a dal baax na baax na war a dal du ma mës a dellu ginnaaw. dalal waree c'est bon signal fii dalal yow tamit. signal foofu ah signal fii. signal entre les lignes. signal waalo rek. waalo waa kay na nga ko doon defee. merci beaucoup léegi nag. waa baax na passeport bi mi ngi nii. waa kay mais avant ngeen di dem. waa dama dégg na da ngeen di defaat beneen marche. ñoom bu baax. Euh, monsieur Niang may ma tuuti yow da ngeen defaat beneen marche. bu baax déet war a nen déet wuy ma. man waree sax ku ma xam-xam ni man gaynde laay doon te gaynde laay ma sax doon. moom moom organisé wul xam ngeen ne bu ngeen marchaatee dinañ leen sànniwaat gën a ñu gën a saf yi leen sànniwoon. Eh, yi mbooloo laa affaire bi dañ ko gën a renforcer chaque jour marche bi gën a neex day gën a tar. waree waree Ablaye Ablaye waxuma lii de. léegi nag léegi nag comme noonu la demee monsieur Niang passeport bi mi ngi nii taxawal taxawal tuuti les grands mots les grands remèdes pare nga pare nga. gaynde euh, comme da ngay marchat. ba du Sénégal ay moyens du jeex. ndax ñun bu ñu indee ñaari policier ngeen dóor ñaari policier ñu indi ñeenti policier ngeen dóor ñeent ñu indi dix su ngeen dóoree dix ñu indi leen ñaari camion ngeen dóor ñaari camion ñu indi leen conteneur mënoo leen dara nguur kenn mënu xeex ak moom euh, monsieur Dia monsieur Dia s'il vous plaît lancez lancez les gaz lacrymogènes monsieur Dia lancez les gaz lacrymogènes s'il vous plaît monsieur Dia lancez les gaz lacrymogènes maintenant lii lan la laay laay la laay way ay wa da ngeen di marcher Adja Khoudia Adja déet déet yaa gay na de kay yow kay muus la. da ngeen di marsal rek marsal rek déedéet Adja Khoudia si sama bàyyi Adja Khoudia bàyyi Adja Khoudia. laay laay laay lancé encore lancé encore les gaz lacrymogène. waay yow ma ne waree ba waay waree yaa ngi may rey. waree la yow yaa na gay na de kay. monsieur Madické eh, Niang gardez votre calme monsieur Madické Niang gardez votre calme monsieur Madické gardez votre calme monsieur Madické gardez votre calme gardez votre calme